Rewmi 24 TV. ndax dañu nekk képp koo am loo xam ne que euh, mun nga ko ñaxtu ci fii ñu toll ci élection yi ci organisation élection yi maanaam ubbil nañ la bunt pour nga indi say ñaxtu kon boog suñuy ñaxtu euh, yóbbu nañ ko saytu nañu ko bu baax a xool la nga xam ne lépp yoon wax na ko topp ko tànk ak tànk benn benn ba ñun am nañu yàqin nekk bu fekkee nekk yoon rek la ñuy dogal Ousmane Sonko dina participer ci élection yi léegi euh, ñëpp gis nañ ne que benn këyit rek lañ ñu ne woon këyit bi motul et léegi ñoom xoolaguñu mbir mi ci biir pour maanaam mën a wax nan la tuddati ndax euh, mbir mi jeex na wala jeexul këyit boobu non seulement jox nañ leen ko wante lépp li nga xam ne ko yoon wax na ko matal nañ kon moom bu fekkee ne yoon mooy dox di wéy ne ñëpp jàpp ne que Ousmane Sonko dina bokk ci élection deux mille vingt quatre le cinq février kon denc leen espoir bi day nga yàlla nit ak ay pexem yàlla ak dogalam wante la def te wax war nañu mën a may ne ñu jàpp ne que Ousmane Sonko dina dem élection 2024. non ne woon naa ne que damay informer rek kon boog bu leen ma indi ci. yoo bi moom moo di moom moo di que ñëpp gis nañ ne que caisse de dépôt et de ak direction générale des élections ñoom ñoo bañ a joxe euh, maanaam jumtuwaay yi nga xam ne que dañ koo laaj wante ñun def nañu euh, li nga xam ne que yoon ak conseil constitutionnel loolu la mës moom moo di que bu fekk administration mënul euh, taxaw faagaagal ak ak yelleefu doomu aadama bu fekkee ne ñu ci élection lañ nekk te indi nañu firnde nekk que administration moo ko faagaagal dañuy considérer ne que nit ki day dem ci élection kon boog ñëpp gis nañu faagaagal bi indi nañu firnde yi wane que ne ñoom ñoo ko faagaagal caisse de dépôt et de consignation ak service ministère chargé des élections kon boog la yoon wax ak nin jaar nañ ci bon peut-être un truc complémentaire en français donc c'est un dossier qui répond parfaitement aux dispositions des articles 28 et 29 de la Constitution 57 120 à 127 du, code électoral et R56 du code électoral. Donc, euh, c'est aussi conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Donc voilà, c'est l'information que nous avions à donner et c'est en fait le sens euh, des réclamations.